jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbacké ngir ñu fagaru ci cancer du sein moo tax Ibrahima Cissé indi fi camion bi nga xam ne dafa ànd ak jumtukaay yi mu war a àndal ngir amal consultation gratuite jëmee ci jigéen ñi ci li nga xam ne moo di cancer duy sein. xam nga ci at bu bees lañ nekk te at bu mm-hmm. bees bi d'habitude kuy ñaanal nit da nga naan ko yàlla na nga am wér gu yaram mm-hmm. ñu ne ah ñun dinañ ñaanal waa Mbacké ñu am wér gu yaram mais dinañ ko tàmbalee ci jigéen ñi. ñu indil leen benn camion mobile buy def dépistage parce que wérgu yaram fan lay tàmbalee dama yaakaar ne mooy ci dépister nga xam lan moo la dal ba pare soo xamee lu la dal dina la mën tax nga mën a moytu yu bëri soo xamee lan moo la dal dina la mën tax aussi nga jël say disposition ba loolu dal la nga mën ko faj saafara cancer du sein bëri na ñoo xam ne jamono ji am nañ ko waaye xamuñ ko consultation gratuite bi occasion la ngir képp koo xam ne am na ko ngir mu mën a dem ci kër docteur yi ñu mën ko faj loolee di xalaatu médecin chef district bu Mbacké di madame Mbacké ñëwoon nemmeeku ci consultation gratuite bi. kon loolu am na solo parce que su fekkee ni ni yow amuloo ko. ah da ngay gën a xel dafay dal parce que xam nga ne amoo ko donc di nga gën a mën a toppatoo di suivre sa bopp ba doo ko am bu dee koo xam ni tam xëy na buñ ko gisul woon fii ak 6 mois at ñaari at dana am cancer du sein ñu gis ko tam euh, dànkaafu ko faj ko ba du àgg ci cancer du sein loolu tam alhamdulilah bu dee koo xam ni tam àgg na stade bu mu mënti tollu rek. danañ ko mën a jël en charge en tout cas. jëf ji nga xam ne Ibrahima Cissé def na ko fii ci département bu Mbacké nekk na lool mboolem ñi fi ñëw rafetlu nañ ko. wax dëgg yàlla doon na loo xamante ne si am na ci mbégte torop moo xam ne si am na fu mu commencé mais amul fu mu yem te jàngoro yi bari na te feebar te faju jafe na kon suñ ñu indilee tey euh, rajo bii di ñu ko may ñun jigéen ñi nga xam ne si bu dee da ngaa war a jóg dem def ko yaa ngi fay fukki junneeg ñaar ñu ñëw defal ñu ko gratuite amuñu lu di leen sant di leen gërëm mu ñu ne leen fay sérieusement parler. donc vraiment ñun duñu tay ci di ko remercier. di ko wax ni nag lii bu mu nekk benn rek na koy faral di def parce que jigéen bi normalement tous les six war na mën a xam yaramam. ni nga xam ne noonu lañ taxawalee ci quartier yi bàjjani gox ñuy waxtaan ak jigéen ñi di leen conseiller Ibrahima Cissé nee na dañoo war a taxawalee it nijaayu gox ngir ñuy waxtaan ak góor ñi di leen conseiller bu baax a baax. fu mu amee bàjjanu gox war nañ fa benn samp benn nijaayu gox muy wax ak tamit góor ñi. consultation gratuite bi consulté nañ ci lim bu takku ci ay jigéen fii ci département bu Mbacké liggéey bi nag nekk lool Ibrahima Cissé nee na du fi yem ndax daañu amal yeneen bés yoo xam ne consultation gratuite lay doon lépp rek ngir jàppale askan wi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ngir ñu mën a faju